d'accord euh, li ñu mën a wax rek euh, bi ñu paree liggéey bi gis nañ ne wolofu ñaan yi euh, yàgg nañ fi mais fiñ ñu jógee bëri na am na ñoo xamante ne ñu ngi jógee Bundu ñii jóge Saalum ñii jógee Jolof ñii jógee Ndukumaan donc loolu mooy wane ne ñaan yi ethnie fi daje yëpp boo xoolee ñu ngi dund ci harmonie li wax harmonie te li enquête bi wane mooy maanaam cosaan ak aada boobu lu ci bëri tey defatuñ ko ndax nit ñi dugg nañ ci diine ji tax na ba lu bëri nangootuñ cee wax nangu nangu nangootuñ cee dellu waaye ñun xam nañ ne cosaan ak aada yàgg na fi te lu am njëriñ la euh, moo tax euh, enquête bi amoon quelque problème waaw parce que euh, léeg-léeg da ngay dem ci dëkk duñ la nangoo joxe renseignement bon mais lu bëri quand jot nañ ci am renseignement yu bëri waaw te vraiment gis nañ ne wuute bi bëriwul. xëy na rek am na ay influence yoo xam ne par exemple boo jëlee wolof yi jógee buntu ñoom seen influence surtout dafa bëri ci côté euh, pulaar yi pulaar yi dañuy influencé ba dañoo daanaka seen cosaan ak aada dafa cosaanu pël la boo jëlee aussi yeneen euh, kii jolof-jolof yi euh, daanaka ñoom aussi léegi presque dañoo islamisé ba daanaka waxtuñu waxu cosaan ak aada donc li ñu a rek mooy li ébauche la woon pour permettre aux étudiants que ëllëg ñu mën a ñëw dans le Niani def ay enquête de sociologie d' anthropologie yu mel noonu voilà ñu am point de départ boo xam ne mën na leen permettre ñu gën a xóotal. bon li gëstu yi joxe daal mooy wolof yi yàgg nañ fi surtout wolofu bund yi ak jolof jolof yi yàgg nañ fi ak Saalum Saalum yàgg nañ fi lool. mais à peu près li ñu mën a jàpp daal mooy au moins def nañ fi un siècle et demi wala deux siècles à peu près.